allo asalaamaaleykum jàmm ngeen fanaan maa ngi ni seetu walaay fi toog di jël naaj naaj bi fa baax si yaram <laughs> toog di jël naaj bi pare taxaw si suuf si toog si suuf si you know grounding ma ne xaaral dikk ñu waxtaan tuuti benn ten minutes rek waxtaan bu ndaw waxtaan suba teel soo yaa di ngeen ma gis may el di def suba teel vidéo yii nii incha allah suba teel vidéo dama ko bëgg trop parce que suba teel si la di si bëri si laa di gën a focus gën xam message boo xam ne nii pare naa pour deliver ko soo yaa tey dinañ waxtaanee sa xel mi ak karit yi ngay xàndal xarit yi ngay toogal walla jos yi ngay seetaan yi ngay déglu hmm? nu mën a contribuer si sa àdduna baax ak nu mën a bokkee si li tax sa àdduna yàqu mbala dile tardé mbala dugal la si coono yu bëree bëree bëree bëree waaw soo tey loolu ñuy waxtaanee relax leen ya su ngeen likee vidéo yi bu ngeen ko fàttee di ko like and séddoo ko ak seen xarit yi nga xam ne nii mën nañ koo déglu soo yee guys na ngeen def nag bàyyi nañ si jàmm rek alhamdulillah barikal di ñaan yàlla may ñu jàmm ak fan gu dëwee gi yaram ñun ñëpp ku xam njaxle yàlla na ko yàlla teggi waaye yàlla nga ko teggi sa bopp yàlla yàlla bay sa tool ñu ñu bari dañuy toog di xaar yàlla yoor loxo ñëw seppi ñu fajal ñu suñ jaxle it's not like that jaaxle gi yu si bari lu manti do yow ni nga koy xalaatee du ko mbala yow ni koy fajee du noonu mbala yow jaaxle gi li ni nga ko def noonu la duut ñu ñu ci bari ñu ngi xam jaxle yi ñàkk fayda yoo xam ne ngay toog di wax ne nit moo ma war a jox suma àdduna wala lu tax nit def defalu ma lii lu tax nit defalu ma laa te nit kooku ko yaa ko ëpp xel ëpp ko kàttan nga mën a tàmbali from zero développe sa bopp mbala ngay def loo war ta def loo xam ne mu ngi lay indil jaxle instead of ngay jaxle nga koo war a ba waaw yeneen ak yeneen daal wala nga ne di defante defante gópp ko xam ne moo lay indil jaxle la jos nga ne di dugg ci problème boo xam ne mënoo ca dara seeni waroom fañ stress xam seen problème xam seen jaxle ndax ñun communauté bi dafa bëri nit ñu stress te duñ nangoo faj seen stress moo tax ñuy tegante fitna di defante di tegante jaxle yow boo nexee ci digg bi yow loolu fa lay fitnaal indil la problème ba sa liggéey doo ko mën a tee def nga confuse soo leen waxalee nanguwuñ seetaan leen su fekkee ne kenn ki sa jabar la wala nangam wala sa rakk wan leen ne nangam bi soo ko baxut dogoon naa yow xaa dina ba àllaaxira am doon with you sonn naa si defante bi xuloo bi mu ngi may indi stress mënatuma focus pour liggéey su ngeen mënut a def seen bopp nit wala yow su kii mënut a def boppam nit yow mënoo koo seetaan ku nekk ne may wiin di defante mais ni ko dof génnee leen ma si am out yéen nii soo ko waxee lool soo waxee loolu kenn danay ba at least waaye gi nga Afrique ak ñun communauté bi ak doomu aadama njaay yëpp in général hmm? scientist yaa ngi jàngale li yàq ñu àdduna man maa ngi research ak a jàng si expert yi du jeex scientist or not moo tax may waxat yi yëpp lii yàq suñu àdduna number one mooy defante bu bëri bi te defante bu bëri stress a koy waral fii ku fi xamut fi xamut stress ku ne du tal defante that's the reality yow booy defante moom fa lay seetaan mel ni ngaa dof waaw yooyu yëpp loo xam ne la ci luy yàq àdduna la ci loo xam ne la su ngeen buggee ma def si vidéo incha allah wax leen waaye vidéo bi is not about so waaye bugg a wax loolu tuuti rek parce que loolu yow mën na laa indil problème yow mi nga xam ne yaa ne ci digg bi mbala yow mi nga xam ne yaay defante loolu fa lay indil problème kon nag yow give up rek nga ba waaye la ma bëgg a waxtaanee mooy xarit ak yow sa xel mi xel loo xam ne la xalaatkat bu mag a mag a mag a mag la say xalaat lu baax di xalaat lu bon def na si yow boo ko traîner boo ko traîner muy xalaat lu baax masta xalaat lu baax lay doon nga traîner ko muy xalaat lu bon ak a yërëmtalu ak fiil baad ak jos xalaat di la yërëm di fiil baat wala jos di xalaat lu bon tuwas yu wala tuwas nit ñi ak tuwas àdduna xel moom ak xel mu lëndëm la te feebar te nga ko war a faj raxas ko set nga detox ko xori tubaab yi di ko tireen ndànk-ndànk di xalaat lu baax di xalaat positif tuwas yow ak tuwas nit ñi ak tuwas àddina si ah ba yëpp dana wecceeku incha allah jaar nga tàmbali na ma wan di wax sa boppu dëgg di doxalee dëgg sa digganteeg sa xarit yeeg sa digganteeg nit ñi ku la bugg ku doon nit ku dëggu loolu du tax mu bala nit ku dëgg wut falay ba waaye yow soxla woo nit ñu dëgg wut ci sa àdduna nit ku dëgguwut bi la baxee nga sant yàlla ndax nit ku dëgguwut bu nekkee yow lum yàgg-yàgg dana la jàmbu te lum yàgg-yàgg dana la def lu tax nga ba kon nag yow bu ragal la wax dëgg ba parce que yaa ngi am ay xarit mbala parce que yaa ngi bugg am ay xarit ba tax ngay dëgg ci fen ndax fen yi yow lay sonnal ba pare sonnal ñu ñi du leen dimbale dëgg rek kay mujj gannaaw boo dalee foofu bul wéeti bul ragal a wéet gi nga ñun ñu bëri fi mu ne li ñu tax a xam xarit yi ñu war ta xam ah ba tax suñu àdduna di yàqu ah mooy ragal wéetaay xarit boo war ta xam li muy yàqee sa àddina fa bari du wut jos mën na laa dugal ci yu mu la war dugal ay jëfin yoo xam ne waroo koo jëfoo wala action yoo xam ne waroo koo def du lool rek fa lay wecc sa xalaati def ko muy xalaat xalaat bi muy xalaatee moom soo léegi def na ci moom xalaat bi muy xalaatee ndax lu baax la bu dee lu baax la xam nga saas bu dee lu bon la loolu la lay jox te soo ñàkkee fayda nga koy jël te yu ci bëri borom fa koy jël ndax xarit bi yaa ngi wax ak moom saa yu ne guddee bëccëg subaa ngoon yi na ngi waxtaan léegi pour moom eh, xalaat yi muy xalaatee mu jox la ko te xarit yu bëri suñuy xalaatee neen na yow soo ko xalaatee la bugg surtout suñu xamee ne yow li ngay xalaatee moo baax mooy dëgg gi duñ la bugg jox bi ko sof dat xanaa mu dox xarit bu dëggu dëgg waaw fa ñuy bëgg ko maaj ak ñoom xànd ak ñoom ci xalaat yu bon yi ñuy xalaatee ak jëfin yu bon yi xalaatee ndax buñ rus te buñ xalaat ne yow yaa leen xëpp xel wala yow yaa leen xëpp gën wala yow li ngay wax nii mooy dëgg crédit boobu sax lañ lay bañ a jox surtout nit ku ñuul nit ñuul du bëgg a joxe crédit soo léegi fañ lay attaque ne lu tax nga wax lool bala ñu bedd la yow nag soo bañee lool da yàq saa dina dana yàqu that's the reality ndax fii nit ñu baax ñi jara def xarit ñoo bëriwut ndax nit ñu baax ñi jara def xarit ñëpp fa ñuy ragal xarit yu xees ak ragal dugalante yu bëri foo fekk ni ko xam ne golo gu lakk si daay gu ne mu cëb tëb ci peelu nekk ak moom xarit di dugalanteek moom te ñu ngi jos xamante two minutes xamal ne ku ko ci boppam fa baaxut mbala xam na ay jikko yu ne ci moom yu mu war a wecci ne ni konoon fay xalaat bala moo dugalanteeg nit mu xalaat nit ka study nit ka ba xam ndax nit ka ku jara a la. that's reality xam na nit ñoo xam ne nga leen di bugg waaye nga leen di xaw a sori tuuti ba saawuñ paree pour faj seen xel mi pour dëppaat bu dul loolu rek dañ la indil fitna boo xam ne ah te yow sa bopp nga leen di indil fitna ndax soo leen di waxal lu baax ñu jël ko def ko fitna pare ku ñoo wecc doomu aadama njaay fekk pare so sonn si àdduna ba paree wecc kenn du ko wecci xanaa moom mu paree wecci bu nga xam lu baax di wut xam-xam pour weccee ko nga tase moom wecci ko mbala mu torox ba sonn ba bugg a give up pour wecceeku xanaa lool waaye pour yow nga gis ko nii rek muy def dara nga wecce ko loolu xamul soo li nga xam ne nii moom lañ war a xam mooy ñun suñ xel mi mooy suñ xarit mooy suñ ennemi xel mi bu ko yuusee mu di la gaay di la garde sa àdduna yëpp danga ko xam fii te danga xam jàmm inside bul di nangu xel mi raw la soo toogee sa xel mi di xalaat négative wala nga toog ak xarit yoo xam ne fu ñu toll ñu ngi xalaat négatif di wax négatif di jàmbatu di yërëmtalu di jàmbatu communauté bi african communauté lii moo tax ñu xalaku suñ jàmbatu gi ak suñ yërëmtalu gañ daan def Afrique ñu ngi ko gàddu indi ko bitim réew fuñ dem mu ànd ak ñun ci suñ yaay yee suñu waajur yi lañ ko jëlee ndax ñoom ci seen bopp fañ dund métit saan ñoom ñu ci bëri fañ sëyee koo xam ne bëgguñ ko jos dund métit bañ duxee gune mag continuer métit gi ñàkk boole ci xam métit moo tax ñoom ñu ci bëri ñu miin jàmbatu ak kultu te ñun ñu si bëri xam nañ jëkkër yi supportif waaye ñu ci bëri xam nañ jëkkër yoo xam ne du nekkuñ supportif ñun suñ jigéen ñu ci bëri seen jëkkër duñ leen di support nañ leen war a supporté that's the reality jëkkër yi si bëri buñ xawee xam tuuti sax jigéen ji fay torox ba bugg a dee ndax duñ koy jox lañ ko war a jox duñ koy support te su jigéen ja waxee ñu xas ko dóor ko sax ñenn ñi soo jigéen ja du xam fenn kenn kenn ku koy déglu ak kenn ku koy soppol ak métitam fay ne di jàmbatu rek di xultu te gune nag boo koy yar di jàmbati di xultu di yërëmtalu dee nga rey nga gune ya te yëgoo ko gune ya loolu ngay def ci ñoom ñu mag di ko def ci àddina si te nit bu sa brain bi mii ne yërëmtalu ak jàmbatu ba sa brain bi dem ba miin ba foog ne yow daal nga xam problème yow daal loo xam ne nga yow daal xamoo wërsëg wala yow daal xamoo ku la bugg wala yow daal lii wala nit ñi lii wala xaa dina si lii brain bi su miinee loolu ba ba miin yërëmtalu rek jeex nga sa xaa pare na parce que mooy na gëmoo sa bopp te nit ku gëmul boppam hmm? muy def xamul xàpp gi nga nit gëmul boppam di yërëm boppam di gëma di boppam di gëma di àdduna si gëma di nit ñi la muy def ci lu bon xamul xàpp ndax dafay give up boppam give up du protect boppam nit ku protectul boppam xamul lum dul def ci lu bon xamul lum dul wax xamul fu mu dul dem xamul xemukaay la muy def waaye boo gëmee sa bopp protect sa xel mi protect ni ngay xalaatee protect xarit ñi ngay ànd ak ni xalaatee nga di ko seet di ko xam sooy ànd ak koo xam ne fu mu toll mu ngi jàmbatu fu mu toll mu ngi xalaat négatif di wax négatif ci nit ñi ak boppam ak àdduna daal di give up di jàmbatu hey man lii hey nit ñi lii hey àdduna lii nii nii waxal ak moom si njëkk a teraanga ne ko ah diw sàngam wala ah jànga wala ah booy ah yéen nañ xalaat ñu think positive man de léegi na ma di xalaat ma think positive parce que suñ thinkut positive is not good too much negative thinking is not good fu mu jaar aduna bi dëgg am na ni ñu bon waaye am na nit ñu baax tamit de waaw te ñun su bopp suñ bopp tamit dañ war a xalaat positive suñ xalaatee positive daf ñoo indil wërsëg you know for example anything loo xam ne mu ngi xalaat naan liggéey xamut wala xaw ma nangam nga ne liggéey am na ni gëm ne liggéey am na rek to be honest liggéey am na xoolal nit ñi liggéey yëpp te gënuñu nañ try rek dinañ am lu baax sa ko bëggee da ngaa soona liggéey du ñëpp ñoo ko dee am mu yomba liggéey ak loof moo xem ñenn ñi fa ñuy jóg rek xam ko ñenn ñi nag fa ñuy try try ba lañ koo xam doo si mit ne yow ngaa xumu wala nangam déedéet soo xamee kayit bu baax xam loo kayit yoo war a liggéey xam xam-xam bi xam kàttan gi da nga xam liggéey mhm. yow yaay dem wut soo xamul nga wutaat waaye soo gifopee rek because yaa ngi bëgg a def leneen leen loo loo warta def soo ngay wax ne liggéey xamul xaaral ma def li parce que sa xel maa ngi lay wax ne liggéey xamul defal li sa xel mi su mu nee jàmbatu fay wax ne ah doo ko mën a xam loo tàmbalee def rek mu ne doo ko mën a def de doo mën a def lale lale nii kële nii ki naa lale naa ki naa because sa xel mi dafa miin jàmbatu ak xultu ak tuutil ak doo ak doyadil lu ne soo loo bëgg a dugg sa xel mi ñëw nag di la attaque ba ko xel rek soo ko baxee xel rek sa àdduna yëpp ay wecceeku waaw soo xamee xarit yoo xam ne noonu la ñuy def nga wax leen ko si njëkk ak teraanga waaye fii ñu nit li problème bi mooy loo xaritoo xaritoo ak nit xarit ak naa fekk ngay def boo koy wax dëgg rek mu bala xarit yu ci bëri comme ni ma ko waxee si beginning bi xanaa xarit bu baax te yow xarit bu baax nga soxla kon xarit ba bu la baxee ngi dëgg nga ko wax na na la ne ko neyul ñiw waa kët walal ko yóbbal jox ko mu dem fa fekk du xarit bu baax soxla woo ni ñu bon gi nga soo buggee change sa mind change ni ngay xalaatee change sa attitude change sa àdduna yëpp hmm? by force nit ñi ngay xàndali dana xam ñu change ndax ñoom ñëpp duñ ko nangu fa ñuy bugg yow nga nekk nit ku yàgg ki nga neexoon te nit ku yàgg ki nga neexoon jigul la yow baaxut si yow baaxut ci ñoom ñoom it nit ku yàgg kiñ do baaxut ci ñoom yow léegi ngaa war a move bugg a move to the next level wax leen ko si njëkk ak teraanga suñ nanguwut nga baleen te continuer that's the reality waaye soo ne ngay langaamu si ñoom fañ lay xëcc di la tardeel doo dem te ñoom it duñ dem te soo weccee sa xalaat wecci sa àdduna ah da nga gën a xam wërsëg gën a xam jàmm gën a xam wér yaram gën a xam nit ñu baax ñi di ñëw ci yow lépp lu baax looy wut danga xam chance pour xam ko waaye soo jëlee yoon woo warta xaw def xalaat boo warta xalaat ci sa àdduna fa lay gën a hum indil la ay problème lu nekk xaj na si lu ne rek xaj na ci nag xamul xemukaay ndax sa xel mi da moo muy gën a def lu mu warta def rek da moo mu la koy gën a laaj rek mooy sa ennemi naan la waa demal def ko aca defal lii itam xaay is is life xaay life is risky defal lii defal laa defal lii defal la ba nga nekk karab benn palace mbala sa bakkan des si mbala jos bakkan ni nit des si jos yu rek nga soog a ne tot ne su ma yëgoon balaa caag jël jëla sa xel mi di la guide saa wooy def loo warta def la sa xel mi ñëwee di la protect xel mi ni ko yàlla defee dafay ñëw di la protect yow yaa ko du déglu rek saa woy def la warta def si xel di ñëw ne la nangam bu ko def nee ko wax nga dëgg de jërëjëf li nga ma fàttale ne li waruma koo def rek nga baakaaw bul jël ñaari xalaat su xeboo sa xarit yi yëpp ñu noo on anything ne leen lii duma ko def lii mënuma koo def lii duma si dugg am soori su xeboo ñu xooxee la kaawot su xeboo ñu xooxee la whatever nga génn tukk ba leen sax ba leen sax dem soo defee loolu jàngal nga leen wax nga wax leen dëgg na leen lii ñu ngi koy def waaye lii maa ngi koy def ñu ngi koy def waaye man it's pour ma bàyyi ko nit ki sooy def loo war def da nga fa war a time dafa war a am nga nekk maan nga nekk góor wala nga nekk nit jigéen nga xam dëgër xam fulaak fayda nga xam enof parce que ñi nga xam ay gune dañuy seetaan yoo xam ne ñu ngi leen di jàngal lii te ñun suñ bopp kenn du bëgg a jur doom ju mel nii kon nag is enof pour ñu baakaaw dem nekk maanop bil suñ bopp pour ñu xam njaboot xam famille bu correct xam àdduna bu correct nit ñi koy xam gënuñ ñu gi nga lu soo ko waxee bu dee ay groupe la ñu bëri da leen ci wecci su soo demee ñu bëri danañ toog xalaataat ko ñëw fekk si la ne la booy li nga wax dëgg la maa bëgg a ànd yow ci lii ñu ñi ci nar a baax ñi ci fekkee ne nag ñoom ñëpp a nar a continuer bon ba leen ci fekk danañ la beddi nga ne leen nuyu ñu waa kër baleen nga continuer di muñ wecci sa bopp su yàggee da nga xarit yu baax am xaddu na bu baax nga nekk feneen seetaan leen te di leen ñaanal noonu la das da réalité àdduna revenge ak defante du ko mas a faj ndax yow li ngay revenge yëpp lu si bëri kenn deful la dara yow sa ennemi bopp nga sa bopp ngay revenge that's the reality bugg a indi message bi rek pour jàngal leen ñu ngeen di def ba protect seen bopp ak nu ñuy def ba protect seen bopp ñun ñëpp waaye bugguma vidéo bi gudd soo yee suñ xel mi nañ koy bàyyi xel rek sooy bàyyi xel xel mi rek sa àddina dina baax incha allah bàyyi ko xel fu lay dugal bàyyi ko xel lu lay bugg a loo bàyyi ko xel ñi ngay xàndat te xel mi moo lay moo lay def si yooyu yëpp ah xamal xarit yi a ah, it's fine su fekkee li ñuy def jaaduwul sax who cares yow da nga nit friend wala yow da nga stress a ah, continuer def lii wala yow nii no dee ko xeex moom di ko wëññi saa xel mi ñëwee di la wax négatif staf lu baaxul si yow nga ne ko beneen boor bi si xel mi daf lay fàttali ne la boor bii mu ngi lay dugal ci seytaane soo nee ko waa nga dëgg xel mi ñaari boor la boor bu positif ak boor bu négatif saa wu boor bu négatif bi ñëwee di la pousse parce que dafa miin di la yuus di la def loo loo warta def te soo paree mu xas la ne la yow li nga def nii foog nga ne war nga koo def stupide yow nangam yow idiot fa lay xas de fii ku fii def loo warta def yow yaay fipp waay sa xel mi fa lay xas ni mu ciy dugalee la lay xasee boo boo ko defee ba ngay feel guilty di rus nit ñi buñ la nga rus mer balaa caag nga def sa bopp nit te bul déglu xel mi nga xam ne moo lay dugal ci fitna bi ba pare soo paree muy rus di mer di la xas seetlu ko xel mi mooy suñu ennemi jàng ko moo mën naa nekk sa best friend nag soo ko traîner bu nekk sa best friend di la guide fay miin di la garde di la garder si di miin di xalaat lu baax yal nañu yàlla may jàmm yàlla musal ci seytaane yàlla nañ musal suñ bopp ñun ci seytaane yàlla nañ gëm suñ bopp xam ne kenn gënul ñu te xam ne ñun li ñuy def mais ni ñooy askanu communauté bi ak def yeneen yoo xam ne mooy sedd xoli bañaka yeneen yoo xam ne fa ñuy tardeel yàqal ñu suñu àdduna fañ ko war a bata def suñ bopp nit ndax gune yaa ngi ñu xool das da réalité waaw yal nañu yàlla may xel moom te yal nañu yàlla may koom-koom may ñu fan gu dawee gi yaram musal ñu ci seytaane waaye yal nañ ci musal suñu bopp it jërë ngeen jëf dinaa leen gis beneen yow incha allah ah ja leen jàmm bye